antu jibeewu jibeewu foofu kon jël nañu suñu temps parce que jàpp nañ ni mbir mi mbir mu sérieux la du loo xam ne dangay jóg rekk wax ci ndax li mu dajale walla li mu la dajale ci gëstu ak ci ay xeetu xam-xam moo bari ñun nag Sénégal dañoo baaxewoo léeg-léeg ñu ne sénégalais moom spécialiste la ci lépp moo tax ñu jël ci suñu temps nag def ci liñ ci war a def mooy waxtaan ceeg ñi ci war a waxtaanal ñépp lu mat ñaari semaine a ngi nii waxtaan nañu ak docteurs yi spécialité yépp nag muy infectiologue muy virologue wala bac wala euh, euh, nu mu tudd euh, biologiste waaye yeneen xeetu parce que ñoom ñoo gën a féete lii waaye yeneen xeetu xam-xam yépp généraliste yeeg spécialiste santé publique yeeg ñu bëree bëree bëri jokkoon ak ñoom ñu nañoo ak ñoom wala ñu toog ak ñoom waxtaan ceeg ñoom loolu nag mooy volet bi gënoon jafe ndax mooy volet médical volet bi nga xam ne dafa technique waaye mbir mi umpalewul leen ni dafa am nit yeneen dimension ndax mbirum koom am na ci mbirum koom am na ci te bëri na ci mbirum société am na ci mbirum droit sax am na ci moo tax mu doon mbir moo xam ne technique am na ci naam technique am na ci naam te mooy cëslaay bi balaa nga ciy def dara da ngay déglu technique bi waaye dafa dépasser technique dafa dafa laaj une gestion politique suñu ñu réeree mbir gestion politique bi rek dañuy réeree mbir li ci des yépp santé publique benn dimension la ci les politiques publique boo xam ne dañ koy dénk ay autorités publiques jiite si président la république ak gouvernement am rawati nag ki nga xam ne moo féete lépp lu jëm ci mbirum pàcc kon su ma taxawee fii di wax jàpp ni dama fee taxaw en tant que leader politique waaye dama fee taxaw pour wax ak sénégalais yi ci li nga xam ne moo naroon doon sama doxalin man bu yàlla defoon tey ma nekk président de la république te mu wutee lool nag ak doxalin bi am tey waaye laata ñuy egsi si loolu dina am ñaari pàcc wala ñett yoo xam ne faaw rek ñu leeral ko malheureusement ni ma ko bëggee woon mënul demee noonu ndax dañu am problème technique dama ne woon nañu teel a installé bi defar ko ba nga xam ne yenn yi nga xam ne dafa laaj ñu projeté ko sénégalais gis ko ñu mun koo génne malheureusement problème technique am ba loolu mënuñu koo projeté waaye li ñuy wax fi lu bëri dañ koy def après benn tribune boo xam ne dinañ ko publier ci presse bi publier ko ci réseaux sociaux yi ba sénégalais bu ne mën cee jot gis tam détails yi ñuy wax bu njëkk bi ñu bëgg a leeral balaa ñuy ñëw ci li ëpp solo ci mbir mi mooy dañoo jàmmaat dañoo dañoo dañoo euh, jàkkaarlook gouvernement gouvernement boo xam ne li ma mën a wax ci mbir mi mooy ab échec la mooy ab lajj la waaye dafa di lajj boo xam ne nag du lajj bu bett kenn lajj la boo xam ne dañ dafa mel ni dañ ko programmé woon bi ma bëgg a njëkk a leeral mooy ñoom bàkku nañ fii mais ñoom ñoo gën a baax résultat ci àdduna ci ni ñu gérer coronavirus bi ba sax dem nañu ba ay gouvernement américain wala xamu ban organisation internationale di leen félicité barki démb rek dégg naa benn journaliste waxaat ko di ko laaj benn médecin loolu amut amut li am mooy septembre 2020 dafa am benn journal américain ab journal laa wax de pour wax leen ni ñuy manipuler opinion bi ak ni ñuy wëlbatikee wëlbatikee mbir yi pour jaay seen bopp ak wax lu dul dëgg journal boobu mi ngi tudd USA Today journal boobu dafa bind ne Macky Sall son gouvernement peuvent être classés parmi le deuxième ou le premier mondial, et premier en Afrique sur la gestion de la Covid-19. ab journal la ko bind mënoon na doon journalu Sénégal gi mënoon doon journalu Bénin mënoon na journal feneen yàlla dafa def mu doon journalu américain gisuma lu mu ëppalee journalu keneen nag ndax day gëstu rek xool bind ñu jël loolu daal koy yëkkati fu yeggal ko fu mu yeggul léegi su dee yow journal bindoon na septembre 2000 ne yaa gën a baax les résultats ñi ñëw tey juillet 2021 fu ñu natt nga nekk fa ci nda ndatte wala nga nekk fa ci ndaare yi li may wax dama koy firndeel ak ay statistiques yoo xam ne yu ñu liggéey la te lii moom laa bëggoon projeté ministère mënu koy wet weddi virgule ci li may wax fii su ko buggee weddi mun mën nañu def débat public ci li may wax nii parce que ay chiffres la yoo xam ne chiffre officiel la lu chiffre Ousmane Sonko de inventé wu ma ko chiffre officiel la yoo xam ne statistique mondial mi ngi ci waaye statistique par pays mi ngi ci statistique par zone mi ngi ci boo jëlee zone bi ñu bokk ñun mu muy zone u CEDEAO ñun CEDEAO la ñu bokk CEDEAO fukki réew ak juróom la fukki réew ak juróom soo defee statistiku CEDEAO yi ma jox leen statistique yi li mu joxee ci lu gaaw a gaaw boo jëlee premier point bi ñu wax ko taux de test par rapport à la population par pays mooy soo jëlee réew mu nekk ni mu toll ñaata nit dafay dund nga natt ñaata test lañu ñu def pour natt jàngoro bi pour xool ku ko am ak léegi ku ko am ak ku ko ñàkk boo jëlee loolu te chiffres yi may joxe mooy chiffres yi nga xam ne mise à jour au 18 juillet 2021 la mooy ci weer wi daanaka euh, euh, fukki fan ak ñaar ci gannaaw soo jëlee chiffres yooyu lañ lay wax mooy Sénégal mooy huitième sur quinze huitième avec un taux de test rapporté à la population de 3,54 pour cent soo jëlee indicateur bu ñuy wax taux de cas positif par rapport au test réalisé mooy bu ñu jëlee bu ñu nattee ba pare suñuy seet su suñu nattee téeméeri nit ñu war a seet ñaata nit a ci am jàngoro Sénégal moo ci classé deuxième c'est-à-dire ñi ëpp jàngoro bi mu feeñ par rapport ak taux de test bi Sénégal moo ci classé wu deuxième avec un taux de 8,56 pour cent ci jamono jooju moyen CEDEAO mi ngi ci 6,44 pour cent loolu muy beneen mbir soo jëlee li ñuy wax taux de cas positif par rapport à la population xam nga bële par rapport ak ñi ñu testé la mais par rapport ak population bi yëpp boo jëlee ñaata nit ñoo am jàngoro bi ci test yi di nga gis ni Sénégal mu ngi te jël ñetteel ñetteel ñetteel bi gën a fort d'infection ak un taux de 0,30 pour cent ci taux ci moyenne boo xam ne moyenne céréale bi mi ngi à 0,32 pour cent boo jëlee li ñuy wax ba tey taux de décès par rapport au cas positif mooy boo jëlee ñi jàngoro bi jot ñépp ñaata la ci seen bakkan jaare foofu boo ko jëlee Sénégal mu ngi classé wu cinquième bokk na ci ñu ko ëpp cinquième ci ci ci quinze pays cinquième ci fukki réew ak juróom ak un taux de décès de 2,34 pour cent mooy ñi jàngoro bi dal euh, euh, euh, téeméer boo jël am na ci ñaar ak genn wàll su dee mun nañu wax genn wàllu nit ñoo xam ne jàngoro gi faat na leen donc ñun ñoo ci classé cinquième ci jamono joo xam ne moyenne CEDEAO bi nee naa la ñun ñu ngi ci 2,34 moyenne CEDEAO bi di 1,31 1,31 boo jëlee euh, taux de décès par rapport ak population bi mooy nombre bakkan yi rot ci Covid bi nga natt kook population général bi ñun 16 millions lañu boobu boo ko jëlee Sénégal moo jël premier mooy ñoo ci ëppale ñëpp. avec un taux de décès de 0,0071 pour cent alors que moyenne CEDEAO bi mi ngi 0,0016 pour cent boo jëlee taux de cas sous traitement par rapport au cas positif mooy ñi nga xam ne bu ñu leen nattee ba pare ba gis ni ñii dal na leen ñii nga xam ne ñu ngi leen di faj par rapport ak ñi am cas positif Sénégal it quatrième la ci placé wu avec 14,52 pour cent de taux de traitement de cas sous traitement alors que moyenne bi mi ngi à 4 virgule 51 pour cent yeneen ak yeneen ak yeneen parce que damay bañ statistiques yi guddal mbir mi trop mais li ma bëggoon firndeel foofu rek mooy li ñuy wax sénégalais yi amut te lii ay chiffres la yoo xam ne man binduma ko créé ma ko dinaa leen jox sites yi ngeen ko mën a jëlijee yépp muy sites yi centraliser les données au niveau mondial ak au niveau sous-régional loolu dafa bokk ci seen façon defin mooy fexe ba sëlëm sénégalais yi ñoo fi gën a rafet ñoo fi gën a baaxle ñoo fi gën a ñoo fi gën a fekk dara amu ci ñaareel bi ma bëgg waxtaan nag jëme ci mooy jàngoro gi delsi na delsi na te am na doole li koy firndeel mooy ñaareel yi nga xam ne bëggoon naa ko exposé te malheureusement euh, situation bi mayuñu ko suñuy comparer les trois étapes mun nañ ne ñu ñi ñu ngi ci troisième vague vague nag mooy mbir mi bu demee ba commencé egg benn niveau bi ñu ne am na doole trop dañuy considérer ni benn vague bu bees ñëw na ci diggante vague yi day am ay période yoo xam ne période accalmie la man jëluma vague yi mooy période pic yi waaye dama jël ay période yoo xam ne mun nañ ko natt ak ni ñu gérer crise bi premier période bi mooy boo jëlee du 2 mars 2020 ñëpp fàttaliku nañ ni 2 mars 2020 la mbir mi déclenché wu fii Sénégal 2 mars 2020 ba 27 septembre 2020 ñu ngi def 181 000 dépistages 181 000 la ñu def état du Sénégal ñu gis 14 900 cas mu doon taux de positivité de 8 pour cent taux de positivité de 8 pour cent loolu jox ñu ñu am ci 308 décès période boobu mu wax leen ni 7 mois la 7 mois yooyu 308 décès lañ ci am loolu day joxe taux de létalité mooy. ñi nga xam ne seen bakkan faatu na faatu na ci par rapport ak ñi mbir mi daloon day joxe taux boo xam ne 2 pour cent la pour cent ñu dellu si ci deuxième période bi nga xam ne mën nañ ne door na ci 28 25 euh, mi ngi doore ci 28 septembre 2020 dem ba 26 avril bi passé période boobu boo ko jëlee. juróom ñetti weer la huit mois ñu def ci trois cent quatre mille tests li muy wane mooy presque duble nañu niveau tests yi trois cent quatre mille tests yooyu joxe vingt cinq mille cas fële dama ne woon quatorze mille cas la fii ñu ngi vingt cinq mille vingt cinq mille cas yooyu day joxe moom it taux de positivité de huit pour cent ñu am en moyenne trente et par jour. première crise bi première période bi ñu ngi amoon 30 cas graves par jour loolu joxe 796 décès mooy 796 bakkan rot na ci ci li ñu am ci ay statistiques yu wóor nit ñii corona bi moo leen rey parce que mbirum corona dinaa ci dellu si wax ji bëri na ci nee nañu bëri na ñoo xam ne ñu ngi ciy dee te demuñu ci hôpitaux mais xam nga loolu du loo mën a prouver li nga mën a prouver mooy li ñu la jox ci statistique nga xam ne ministère de la santé moo koy joxe bés bu ne la cee des njort lañ ci mën a am parce que boo gisee yenn yi yenn mandarga yi mun nga am njort bu ñu la nee it ñi ngi doon suul à moyenne nanga minute par jour waaye fan yi yokk na ba duble na mun nga am njort ni ko dem ku dem corona bi la waaye amul kenn ku ko mën a wax avec exactitude parce que ku demul hôpital ñu dépister la kenn amul sañ-sañ ne obligatoirement lii la waaye mun nañ ci am njort loolu nag 796 cas décès yooyu dafa joxe benn taux de positivité de trois pour cent donc 3 pour cent la woon fële 3 pour cent la fii nga ñëw nag période bii ñu nekk nga xam ne ñun ñu ngi ko dooree 27 avril 2021 ba bés bii ñu nekk période bii nga xam ne dafa méngoog. variant delta bi ñu ne dafa xaw a aay gaaf wala dafa xaw a gën a soxor période boobu ba bi ñuy arrêté suñuy statistique ñun ñeenti fan ci gànnaaw muy le 24 juillet 150 000 tests 100 150 000 tests la ñu defoon 150 000 tests ci ñeenti weer donc boo ko bëggoon natt ak période bu jiitu nga xam ne 8 mois la woon da ngay multiplier 150 000 par 2 da lay jox 300 000 bu leen fàttee ni 300000 tests la ñu amoon ci période boobu donc ñu ngi ci même tendance bi 300000 mu joxe 16400 cas donc li ñu ci mën a gis mooy cas yi yokku na ndax fële sur 8 mois on avait 25000 cas bii sur 4 mois on a 16000 cas soo ko multiplié woon par 2 su dee tendance bi dafa maintenir on aurait été à 32000 cas donc cas yi yokku na ñëpp gis nañ ko. loolu joxe taux de positivité de 11 pour cent kon taux de positivité bi na c'est normal parce que cas yokku na fële 8 pour cent la woon fii 11 pour cent waaye soo jëlee statistique gouvernement bi rek nombre de cas graves yi en moyenne dafa wàññeeku parce que fële 30 cas graves la ñu doon en moyenne waaye fii ba bi ñu koy arrêté ñu ngi 13 cas graves en moyenne ñu am ci 164 décès dama ne lii may wax ni c'est jusqu'au 24 juillet 2021 ñu am ci 164 décès loolu day joxe taux de décès de 1 pour cent vague yu njëkk yi on était taux de benn bi trois pour cent benn bi 2 pour cent loolu lan lay firndeel mooy ah am na lu ñu doon wax dafa mel ni statistiques yi wane na ko mooy benn variant delta bi. moo gën a soxar ci gaaw a wàlle moo gën a contagieux boog loolu statistiques yi wane na ko parce que contagion bi moo ëpp ñaareel bi mooy dafa mel ni ci li génn ci statistiques yi li mu rey moo gën a néew li amoon ci deuxième vague bi ak ci premier vague bi lii ay constat la lan lañ ci mën a dégg nag lañ ci mën a dégg mooy la situation est très grave parce que benn bakkan bu rot rek c'est très grave waxuma laa nag suñu nee bës bu nekk nangami sénégalais faatu nañu te mu mën a am ay pic yoo xam ne sànq rek may ñëw laa jot statistique aujourd'hui tey jii ñu ngi à 1200 et quelques cas pour 15 décès ça veut dire que remonté na. parce que ñu ngi amoon pic bi euh, le 18 juillet 2020 la ñu amoon pic bi avec 1722 cas mais fan yi yëpp wàccoon na ba tourner autour de 600 cas tey mu yéegaat à 1000 tey mu yéegaat à 1200 cas ñu wax ñu 15 décès c'est vrai que nombre de tests yi day varier parce que temps yëpp ay 2000 et quelques tests la doon def tey 4000 tests la ñu def loolu tam am na jàngat yu ñu ci war a jël. waaye ak loo ci munti dégg rek li ma bëgg wax sénégalais yi mooy situation bi garaaw na buñ ko xeeb te du feebar bu ndaw ñi mu dal dëgg dëgg dëgg te ñu mucc ci am na ñoo xam ne asymptomatique lañu am na xam ne jotu leen sonal waaye ñi mu sonal dëgg dëgg dëgg dëgg koo ci waxtaanal dina la wax ni mbir mi métti na lool. kon buñ ko sàggane moo tax may woote